jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen seen wàccuwaay bu baax a baax comme ni ma koy faral di tey noonu laa koy waat dalal fi ñaari champion yoo xamante ni ay ndaanaan lañ xale yoo xamante ni bu ñu jógee gox ba ñu dëkk kenn du des gannaaw euh, sama droite nag maa ngi fi am ki nga xamante ni nii mooy mooy Balla Gaye Junior ñu koy wax takkee sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Boy Diop Boy Diop moo ngi nekk équipe Ibrahim Ndiaye PBM Ndiaye moo ngi nekk foofu mbokki mu nekk ñaari xale yoo xamante ni nii ay ndaanaan lañu ñaari xale yoo xamante ni bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëyee mu neex bu ñu taxawee doo laajte ana mbër mi dama leen baa ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi boo Diop nuyu maa ngi lay fay Ousseyn la ziara. Mhm. di wax asalaamaaleykum. ajal di wax asalaamaaleykum di nuyu ñëpp. di nuyu sama mhm. mhm. di ñëpp di màggal ñëpp di nuyu waa Parcelles gi ma jógee di sant sama sëriñ Abdou Karim Mbacké xam di ziar ñëpp di nuyu ñëpp. waaw. père Birahim Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax ana père. moo fi ñu ngi koy ziar bu baax di ko nuyu. Hmm. moo ngi fi mu si jàmm bu baax. nuyu nuyu naa ko. nuyu naa ko hmm. Takké nuyu naa la. Ouzin maa ngi lay fay. Hmm. naan onze billah bisimilah inawal yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur. ñu dolli di santaat suñu ñaari waajur di ñaaral suñu papa. Eh, si lalu hôpital bi mu tëdd yàlla na ko suñu borom bi defal mu jug ak jàmm. Eh, ba mu mën a fekkee sama njariñ Eh, di sant it suma sëriñ maam Samba borom Ngathie Fall di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jugee eh, di sant it sama sëriñ sëñ Cheikh Darou Fall sëñ Cheikh Jëmu Fall waaw ay leeru maam Samba borom Ngathie Fall di bëggee leeru paaleen bi yëpp ak képp ku sant Mbacke maa ngi lay ziar bu baax di bëggee. gis ngeen mbokk yi niñ dugg see am na solo. Euh, ñoom nag nekk nañu xale yoo xam te defe naa ni euh, bokk woon bokk nañu génération te ñoom ñaar seen diggante mbokk yi nekk na loo xamante ni làmb làmb xel xel nangu na ko daal war nañoo mën a jëflante ñoom ñaar seen biir yaa ngi ci ñaata combat. maa ngi ci treize combats. treize combats. Mm-hmm. ñaata victoire. Euh, sept victoire six défaites. six défaites. Mm-hmm. kañ nga dugg ci làmb. man bi may dugg ci làmb première arena tour la. arena tour di arena tour di doog a commencé. boobu laa nekk lu ndaw ñu dugal ma si yaakaar naa ak ñoom Tyson 2. ñoom categorie boobu. Eh, boobu lañ ñu si dugal quoi mais maa si gënoon nekk xale nag. lu tax nga nangu woon dugg ci tournoi. Eh, ndax dama nekk xale ba pare yee ñeme entraînement moo taxoon gars yi gis ma ne booy bi yee am nañ yaakaar si moom nañ ko si dugal boobu maa ngi fekk maa ngi nekk écurie Falaye Balde. Falaye ah Falaye Balde nga dooree. waaw fa écurie Balde laa dooree. ok nan nga boobu boobu defe naa ne yëkkatil micro bi tuuti boobu la la doon woowee lan. Balla Gaye junior Balla Gaye junior <laughs> <laughs> léegi taqe taqe la. mais léegi la moo tax nga changé Balla Gaye junior andi taqe bi. du dara nit ku nekk da nga ñaan yor sa yëfi bopp. te ñun jàmm gën lañ dëkk dañoo fier fi ñu dëkk. nekk nañ xale nag Balla Gaye di def lu rafet. ñu koy bëggee. Mm-hmm. ñu nit ñu am yëg-yëg tuddeeku ko suñu bopp ñu dañoo màgg. xam ni ñun war nañoo mën a yor suñu turu bopp mu nekk suma mag boo xamante ne eh, si marché bi seeraas fee la nekk di liggéey mu tette ma wanu ma daraay lu ñàkk fay la wanu ma lenn lu ñaaw bëgg ma bëgg bëgg ma réussir léegi ma xalaat ne tur boobu noonu war naa ko mën a jël tuddee ko sama bopp si làmb mooy turu takke bi waaw mooy turu takke bi gis ngeen mbokk yi loolu da ciy baax ñu koy leeral ndax ñu ci bay dañ naan la moo war a taxe bi affaire yu demee noonu te ñu ci bëri xamoon ko Balla Gaye junior bë bëri nga ak ñagas si wala. non non ñagas bëriwul. bëriwul ak ñagas si boo Boy Diop Boy bi kañ nga dugg ci làmb. man ay 2014 2015 ah. 2015 waaye 2014 daal laa njëkk ko bëre. yaa ngi ci ñaata combat. maa ngi ci sept combat maa ngi ci huit combat. huit combat ñaata victoire. cinq victoire trois défaites. trois défaites. Mm-hmm. kan ak kan ak kii. ak Zator. ak Tonnerre 2 ak Tonnerre 2. ok yaa ngi compte cinq victoires. waaw. Euh, ban combat nga njëkk a bëree sa premier combat. sama premier combat maa ngi ko njëkk a bëree fii. banlieue la am banlieue maa Pëlu Daaru. yaa Pël bu Daaru. waaw ku daanu du Pël bu Daaru de Pëlu ah. Daaru. kan Pëlu Daaru. Daaru waaw. kooku gisatuma ko nag. waaw kooku xanaa bàyyi ko. waaw. sa sa combat mujj sa diggante yaag. Euh, xeeru ngor la xeeru ngor la woon waaw sama combat mujj maa xeeru ngor la woon quoi. loolu dugg ci xeeru ngor. xeeru ngor toog bañ a bëri rek. moo tax jox ma ko ma jël. mais maa ngi woon du sax ay catégorie moom moroomam sax. mais ñu gis combat bi nga bëgg ak moom. mais combat bi nga daan ko combat bi daal dafa gaaw gaaw na yomb na. te pourtant xeeru ngor bi muy ñëw dafa entraîné na ba taxaw. mais combat bi doole andi na doole mais dama ko. dafa fekk ko ëpp doole. andi na doole mais daa fekk mu ëpp ko doole. entraînement yi bokkul xam nga liggéey bi bokkul moo tax mu demee noonu moom xamoon na ne ma ko dool na ne bu ma ko jàppee laa ma jàpp moo tax abit non mais xam woon loolu de parce que bi mu ñëwee na ambiance andi na confiance ci biir géew bi defe naa ne li fa am sax yëpp est ce que que tàntewul kele yi non man kele la ma dox si kaw mu génn làng mu génn ñëwaat dóor ma jàpp loxo bi xàcc mu yooru ma dóor ko ans ans nga ko dóor ans laa ko mbotu ma ko daal mboto jotoo ko mbot ba léegi nga toog di xaar moom tamit bi nga fi bëree loolu amaan na fi combat daan ba combat taxawaat combat am taxawaat yow boobaak léegi kenn déggu la nga toog soo ko non joxuñ wax nañ ma ay combat maa ko jëlul quoi parce que dañ lay mënoo nekk di mënoo nekk si benn dynamique rek boo xamante ne mooy loolu tasay borom di bëri a bëri ñoom mais tamit mais tamit nga nga nga daan toog di xaar boobaak léegi sax moom di bëre di daan di dem mm. nga toog fi nga toog est-ce que gars yi tamit duñ la fi bàyyi. waaw mun na nekk mais ñun xam nga ay taalibe lañu lu xam nga lu am la dañ koy santee ku tedd gi su yàlla tuddee dañuy bëre dañuy bëre mais xam nga ñun toll nañ foo xamante ne nii bu dul ci làmb sax ñu ngi tedd ci leneen ba tax na duñu ñu cuub suñu drapeau ci kaw benn promoteur wala si benn ménagère. Mm-hmm. ñu ñu war a bëre la ñuy mënul bëre ñëw ñu toog xaar. ñun noonu la ñuy joobee quoi. Hmm. mais baa sa drapeau si yenn business yi. gis nga bu la nangoo cuub seen drapeau mbër mu des fois am na ci mbër yoo comme ni ma koy waxee am na mbër yoo xam te ne dañuy am na promoteur yoo xam ne dañuy am mbër mais nag des fois dina xaw a ci mbër moo xamante ni nii dafay toog di xaar am ndam wala boog di entraîné toog di xaar day métti ci yenn mbër yi balaa maa ñëw sa mbaam mujj bi sa benn combat yaa booy jumla woon wala kan. booy puy booy mais ñëw gis la sa diggante ak yëkkati micro bi sa diggante yaag booy puy. keroog dugg see stade gis ni nga def stade bi wàllum ambiance mobilisation ma gis beneen takke mhm. ci gëm-gëm ba ci tuus bi day day day day day bàkku sax di wane na tey damay dee rek waaye damay am ndam. Mhm. ñu gis ma gis ma gis benn benn benn motivation boo xamante ni dafa amoon ci yow. Mhm. lan la woon. waaw ndax soo xoolee boo boo la gis ngay tuut sax xam ne tey Takké mii tey dafa andi doole te détermination la ñëwee. waaw soo xoolee fii euh, kuñ ci jàppale rek moo fi nekk. Hmm. Eh, ndax man mënu ma imaginer eh, lu ma amuloon mu commencé koo gis teg si sama bët am ay jàppale yoo xamante ni eh, taxaw nañ pour jàppale ma. si hmm. biir ak si biti. liñ ma war mooy liñ ma sant mooy demal nga entraînement heure contact si jotee nga dem contact kan kooku tu changé wul. yooyu keneen warul changer quoi. Mm-hmm. waa Seras it munu ma leen fay ndax ñoom it gën nañ ma yokk jom. Mm-hmm. monument bañ la fa defal waaw. Mm-hmm. chaque jour ñu ngi def loo xamante ni chaque jour dama war a doon champion te chaque jour ñu ngi siy liggéey euh, ba chaque dimanche ñu ngi def réunion di waxtaan lan laa mën a def pour réussir. kan ñu mel noonu soo leen amee ñu teg la si yoon teg la si code mu munoo def leneen lu dul yee wan lu leer quoi waaw dinañ xamal ni. comme bala gay junior bu njëkk ba ak taxet bokkul waaw période bu ñu toll nii si ay loxo yu baax laa nekk dañ naan ma defal lii ma def bàyyi lii ma bàyyi te mu njëkk aw ma woon loolu bu njëkk sama xelu bopp laa doon demee. mais nga ñëw sa diggante ak Boy Pouy. Mhm. mayuloo ko daal ab bi nga dox ci kawam. Mhm. mu daw yoo ko kooku dóor ko. Mhm. combat bi tamit nekk combat bu yomb. waaw soo xoolee te bu ñu gisee signature ba xas-xasloo ngeen mu wax. ba ñëpp yaakaar combat bu ñu moom dina xaw a métti mais combat bu ñëw waaw soo xoolee booy bi dama ko trompé euh, li ma ko trompé mooy que dafa jàpp ni benn pata bu taxaw laa rek ndax soo xoolee moom mu ngi liggéey si pàq làmbaay bi man maa ngi liggéey seeraas. Mhm. heure bu ma wàccee daf may gis heure bu may xëy si daf may gis mais dafa jàpp ni entraîné wu ma. Mhm. ndax ma heure yi ma fay romb la heure bu may entraînement ji dem naa ba ñëw ba sol sama yére ñëw di xëy. Mhm. mu jàpp ni liggéeyu ma jàpp ni su ma jàppee war na mu mën a daan ndax adversaire yi mu daan. Mm-hmm. waaw ndox doo xoolee si dynamique bu baax la nekk ay champion la la teg leen daan leen. léegi mm-hmm. jàpp na ni man su ma ñëwee rek eh, war na ma mën a faxas teg ma fële. Eh, teewul ni xamul ne nag euh, ka mu war a faxas kooku mu ngi waaj waaj boo xamante ni eh, ku dul booy bul sax xoolu ko. mais nga daan ko. Mm-hmm. toog ci sa ndam. booy di bëri ma ñëw ci diggante euh, kii. ñu mu tuddee tuwaay booy bi nekk fas Pape Ndoye ak Abou Ndiassé ñoom ñaar ñu bëree nga ànd ko Pape Ndoye mhm. nga ànd abu Ndiassé ko gis nañ ni mu bëree yàlla dogal mu am ci defet mhm. ñu toog ñaari fan gis nga génn mhm. wala boog ñu gis euh, ni nga réagiré ñu ne sa diggante yow ak moom mais ñu ci bëri nee nañ bi ngay jël combat bi waajuloo ko ndax combat bi durant bi bi bi Pape Ndoye di daan ak bi sa combat yaa ak moom bi taxaw durant bi dafa gàtt te date bi dafa jege jour la ñu ci bëri nee nañ waajuloo ko waaw soo xoolee gàtt na gàttul ndax pour man euh, mbër du waaj day pare. Mhm. ndax man foo ma fekk. man maa ngi entraîné man du ma bàyyi ba am combat di entraîné. Mhm. ma am ma ñàkk laa yemale. man chaque jour dama gëm ni état day fay. ndax mënuma accepter di nga nekk si làmb. Mhm. ay amateur di la gis wala say supporter di la gis naan la mbër da jeex. man loolu du ma ko bëgg ko quoi. man soo ma ko waxee sama waaw sama moral day damm. Eh, moo tax ba ni may wax ak yow nii chaque jour damay entraîner deux séances. Mhm. su ma xëyee damay dem entraînement su ngoonee damay dem entretement waaw ndax su ma métier la dama ko bëgg ndax tàkkusaan yi dafa nekk tàkkusaan yoo xamante ni eh, ku si daanu da ngay ruus. Mhm. mais chaque jour del sabablu loo xamante ni eh, su ñëwee li la yàlla may dinañ la carrément kat yàllaa la xaj mais ñàkkoo ngir sa lii. waaw man si loolu laa nekk diggante bi gàtt na gàttul waaw mais bi ma koy jël ñu bëri nag dañoo jàpp ni dama ko jël pour faj mer. Mm-hmm. jëluma ko jëloo ko pour faj ma tamit. non non jëluma ko pour faj ma ndax soo xoolee mënuma imaginer yow nga bëree daan. Mm-hmm. bëree woo ñu wax la sa combat yaak diw nooy def yi nga yaakaar làmb da nga koy jël pour bëre. Mm-hmm. ndax soo bëriwul ak moom kese boobu dalay romb moom mu dem bëri jeeg keneen léegi yow nga toog fi nga toog. ba léegi doo doo bëree amul sens. te man noonu laa ko gisee ñu doxee combat bi ma ne père aja si ñoom la des. waaw ñoom sax xawoon naa lëbëj ci ñoom. waaw parce que nangu nañ ba ci dem nañ nangu ba si biir ñu tourné waat liwaat ko man ba ba too xoolee ba si biir maa ngi laa leen su xaalis kese la dindi leen si sama kase ngeen dollil ko loolu du problème man naa bëre rek man bëre bi kese moo ma ñor. mais nga ñëw li ñu bëgg li moom ngay def yëpp. Mhm. da nga taxaw bàyyi kook làmb ji. Mhm. ba moment bi mu lay daan. waaw waaw soo xoolee euh, bi may daan euh, li Pape indi. Mhm. man musuma ko xalaat. ndax soo xoolee même su may mag yi may encadré ñi nekk sama staff sax dañ na ma carrément xeex lu muy xeex tëgguwul mais jour jàppal ni sa tànk yi la jëm. wax nañ la ko ba nga dégg ko. waaw wax nañ la ko ba ma dégg ko. yee ma nit nag ma bàyyi ci loolu xel bi ma ñëwee bi ma appliqué xeex man dama see gis bunt mais bunt boobu ma si gis mënu ma ko eggali ndax chaque jour maa ngi bàyyi xel ñee lañ ma wax sàmmal say tànk xeex bi dëgguwul si moom. mais est-ce que nekkul taxawaay bi. waaw ndax soo ah, xoolee. gis nga bi ma koy def njëkk na ma ko def ma faxas ko. Mhm. man jàpp naa ne su may nelaw sax PAM doy mënumaa mhm. yee. pour man cabaxal boobu muy def noonu pour man daanu ma. mais soo xoolee bi ma koy defaat si ginnaaw saako yi la ma koy def bi may teg sama tànk day lemu. mais salte lu ma victoire am champion la. Mhm. ndax ku nekkul jàmbaar taaku sonaan boobu noonu su nekkul woon jàmbaar day bàyyi. ndax daj na si ay coups yoo xamante ni parce que maam Serigne su nekkoon koo xamante ni yaafus la dina jébbalu mais suñ borom bi noonu la ko dogalee woon ma dolli sant di ko félicité di ko xamal ne nag defet boobu noonu noonu ma am si moom. Hmm. daf maa dimbali man. loolu dimbali daf ma dimbali. li tax ma ne daf ma dimbali mooy que dafa ma gën a teg si ay loxo yu baax eh, ñu ma daawul bàyyi xel période bi ñu toll nii dañ may bàyyi xel eh, looloo tax ma ne fu ma toog dama naan carrément dama ko siy sant. mais it ale boo gis am na retour mu ngi si làmb maa ngi si làmb waaw ñaan naa yàlla defaat ay résultat làmb boolewaat ñu si kaw ñu bëriwaat waaw mais lim ma daane woon daal ñu ngi siy liggéey bu baax a baax te xam naa ne dootuma dalaat si làmb. dootu la dalaat si làmb. Mhm. Euh, bi nga daanoog léegi gaa yi ñoo ngi lay woo di la wax combat. waaw bi ma daanoog léegi wax nañ ma mais wax bi taxawul carrément quoi. ndax soo xoolee nee nañ am na ñoo xamante ni moom. Euh, dig nañ ma ne ma après corps suñ deuxième journée suñ koy tëgg incha allah dinañ la si boole waaw mais waxaguñ ma si adversaire nag hmm. waaw ah waxaguñ leen adversaire nag damaa bëgg kii ñu boole ko ci parce que kii xale la boo xamante nii bu jógee waa Parcelles dañuy jóg hmm. te gars yi dañ koy bàyyi xel te defe naa ne bu ngeen taxawee rek ñu ci bari buñ leen gisee dinañ xam ne combat bu jaadu la te Boy Diop mii moom tamit looloo ko téye ba dégg nga ko léegi ci biir waxam ñoo ngi ko propose ay adversaire daan tegle ay victoire am départ di jël ñoo xamante ni kenn xamu leen wala yu kenn xamu ñoo xamante ni daal moom moom defe na leen bëgg hmm. bëgg nga avance Boy man maa ngi fi pour làmb euh, du pour Boy Diop kese man Boy jóob keneen ku Boy Diop pare naa pour bëre ndax man soo xoolee eh, Maxime Bargane ngay woo nga laaj ko man amul avance boo xamante ni day dugg lamsaar bu jëm si takke mu am xel ñaar wala moom mu delloowaat avance bi musul am ndax soo xoolee bi avance bi belee ne di ñëw foofu. Mhm. bi gars yi waxee xam nga lan la leen wax xalaatuma si kenn ku dul takke kooku rek laa xam ni su ñëwee dina ko jël te bi mu ñëwee noonu laa ko jëlee. Mhm. Eh, man awma problème mu adversaire eh, ku ñëw su nekkee sama catégorie ñu war a bëre ñu bëre. boo yóbbu yaa ko dégg de kii de. Ah, kii de kii de moom làmb la. pare nga pour bëre ko taxee. pare na jëlee micro bi. bi moom ngaa invité. a yokk temps sax ma sawar. bi nga waxee ma si baat sax dama la. waaw waaw da ma wax moom. li muy ñëw moo tax man ma ñëw. parce xam naa ne moom waaye adversaire lañ. mais moom combat nag dafa nangoo dafa nangoo métti day teg lu métti. bu ñëwee nag buy bàkk ba naan maam Samba maam ma Samba noo koy waxee. <laughs> maam Samba Fall maam Ngàcc Fall. loolu ñu làmbam làmbam dina koy metti de. ñun lu tàng moo ñuy dundal ñun ay Baye Fall lañ ay taalibe Sëñ Abdou Karim lañ xam nga lu metti lañ bëgg bëgguñu dara lu yomb. boo taxee boo boo gisee sax boobu léegi bëriwuñ looloo tax ñu lu yomb. xam nga làmb ji gars yi dañuy am ay promoteur ñu am ay grand yu leen ñun kese ñooy ñooy bëri suñu famille. sama famille kenn du bëre man kese maa siy su fekkoon lu yomb la ñuy bëgg kon bëgg naa bu yàgg parce que wax mais promoteur yi lay wookee fi mu toll nii gannaaw tax moom bëgg na pare na pour bëri. Mhm. Ah, yàgg moom yàgg moom wool wool promoteur ne. Ah, bi Mag Taxe micro bi Mag Taxe. na ko promoteur yi tëgg. non na ko taxe jëlal sama avance. mafia la yor ma yor mafia. Hmm. combat mafia lay doon. xam ah, naa loolu waaw diggante diggante diggante Parcelles a jàmm gën loolu loolu leneen la. loolu njardéem la. waaw loolu làmb la <laughs> na ci promoteur yi dox rek man moom maa ngi fi samay staff ñu ngi fi. Mhm. ku si waxtaan ak samay staff. man pare naa pour bëri ah. muy moom muy keneen ak keneen laa yemale. gis ko nii rek mais mais mais mais bi benn affaire la. déggoo li ma la man dama ne la soo xoolee sama euh, divi làmb aw ma si combat bu yomb. moo tax soo xoolee sama carrière dafay metti mhm. ci gis-gis. waaw li tax muy metti mooy am na mbër yoo xamante ni seeni i dañ leen di tànnal yoon da lay ni kii moo mën. mu mhm. doog ko koo jox. Eh, man combat yi ma. moom bu taxawee kenn du ne kii moo mën moom. waaw loolu am na mais dama ne la man combat yi ma bëre sama àdduna laa wax yi ma bëre. Mhm. yépp a metti ndax soo xoolee Blindé bëreeg moom day metti mhm. booy Pouye bëreeg moom day metti Jara 2. bëreeg moom day metti Big Mo bu nekk écurie Boul Falé. bëreeg moom day metti Wuli 2. bëreeg moom day metti maam Balla bëreeg moom day metti man musuma am combat bu yomb. Mhm. man chaque jour suma ma lu waaw lu ña lu metti laa ci bëgg ndax Baye Fall laa pour man Baye Fall amul lenn loo xamante ni war na ñëw mu si sii ki saak. mais nag ñu ci bàyyi na say combat teg lu metti loolu moo tax des fois gars ñi lay daan ñëpp dañ lay nax dañ lay woo ci loolu ba nga ñëw ci ñu ñu ñu daw dellu gannaaw. waaw loolu waaw loolu moo am soo ma naxul doo ma daan ndax su dee taxaw bagaar rek mën naa lay duma te doo loolu yàlla dama siy dimbali ndax dañoo nekk xale yaroo marché boo xamante ne soo nekkul bañkat doo fa nekk mm-hmm. foog nga ñeme fayet ñu ñuy tëj ci ay genre mbalko yoo xamante ne yaa sa moroom kese ngeen di dóorante moo tax xeex ku ma si woo ay ree nga may def su heure boo ma woowee xeex stade ñëwee stade suñu xeexee ngay bàyyi ndax beleen de kenn daab ko fi xeex biñ xeexee dafa bàyyi daw bëreeg man ndax ma kaa kii mën nga koo nax wala da ngay da da ngay koy fekk si jàmbaar da nga koy forcé ñeme mën ngaa forcer kii. waaw sëriñ Bamba dama koy forcer. est-ce que gis nga takke xool nga ko bu baax man du ma naxante góor yàlla. góor du ma ko kii kii bandi la bu kii bu suulee tànkam di gannaaw de. man du ma dellu gannaaw. musuma dellu gannaaw. non dama dégg léegi mu ne boo ko naxee mën nga ko daal mais boo ko woowee ci jëflante. dañuy jëflante kon. Baye Fall la may Baye Fall. luñ fay nekk di naxante dañ teg affaire Baye Fall. mais nag yow xam nga Boy Diop mais Boy Diop Boy Diop Boy Diop mi nag ñeme na la. non daanaan la man mbër xam lu ma si bëgg. Mhm. mbër bu am état. waaw mais man bugguma mbër di ko gis di jaawale kii mbër la am du mbër ndax bi ma ko sekkee fii bi mu toogee rek laa xam ne man ak moom lañ war a invité. Mhm. ndax gis naa saayes bi. Mhm. waaw suma combat am moom day neex. te te lu lépp lu mu si bëgg da da siy am. te man duma ku ñuy forcer. période bi ñu toll nii si ay loxo yu baax laa nekk te du ma ñëwaatee stade gars yi dinañ xam ne si ay loxo yu baax laa nekk. man tamit période yu ma nekk nii. sama papa sama ko sama papa la sama ndijaay la. Mhm. moo ma yar ma nekkee booy ba ni ma tool nii. Mhm. jamono ji may am tolof tolof silam dañu xamoon am pele ñaam ak moom. Mhm. mais jamono ji lépp jalaat na ko en charge. amul lu may tiit bu fekkee lu ma soxla daf ma koy defal. te man loolu rek laa soxla ku ma jàppale parce que ma dem keneen di ñaani keneen. moom rek ñëw ni ko gaañ. lii laa soxla mu defal ma parce sama nijaay la ma ma yar sama loxo yaay la mais munu ma dem si doomu ma naan ko ay mayam ak defal ma munu ma loolu. kon daal su ma dégg wax ji mooy xel mi gën naa dal fi mu toll dafa gën a dal barke Sëriñ Bamba daloon na sax mais dafa gën a dal. mbokk yi gis ngeen ñi lay demee ci jàmmaarloo comme ni ma leen koy waxee rek Takké nekk na mbër moo xam te dafa naqatee udd adversaire parce que bi mu bëreeg léegi ay adversaire am ay moromam. ñoo wuta adversaire mais koo ne avance taqe mun a noonu koo ne avance taqe mun tamit gis ngeen bi mu daanee xew ngoor xew ngoor bëri na fi kooñaa daan fi bëri na fi ba amaat fi jëlaat na fi combat bay waaj a bëri boobaa ak léegi moom moo ngi toog fi muy toog nga la nag ñaar ñoo xamante gannaaw mbëri dañ naan ñi dañoo tàppe te ñaar ñi ñemente nañ promoteurs yi xanaa dinañ ci bàyyi xel ñeen ñi nga xamante dañuy tëgg kalaasu Assane Ndiaye geeg Fallou Ndiaye ah duma lim peut-être keneen ak keneen ak keneen ñoom jam nañ bàyyi xel ci combat bi ndax nekk na combat boo xamante bu neex la euh, séance d'entraînement yi nu muy demee. man moom bu ma. micro bi su ma amul combat deux fois lay entraîné. deux fois matin soir su ma amul combat su ma amee combat dama ko si teg trois. trois. suba dimanche rek noppalu. dimanche rek laay noppalu dimanche rek. Hmm. waaw su ma amee combat dimanche. boobu sa combat taxawoon na kii di nga noppalu dimanche. dimanche dama koy noppalu c'est hmm. waaw. séance d'entraînement yi. waaw séance d'entraînement yi man maa ngi si. Eh, nga am sa moniteur boo xamante ni day ànd ak yow dem géej. Mhm. di la entraîner yombul quoi si lundi ba vendredi mu bàyyi liggéeyam dix heures si naaj bu tàng bi lay ànd ak man di ma liggéeyloo physique yu metti man mhm. kooku man mënu ma ko fay. Eh, su ngoonee ma dem lamsaar contact su laajee dem diine ñu dem diine. Mhm. Eh, noonu lañ ko jàppee te xam naa ni daal. Mm-hmm. yéen su ma ñëwaatee ñu xam ne lépp dëgg la. ñu xam ne takkee ñëw na. barki maam Zéra Fall. <laughs> ma ma ma ñëw foofu sax parce que gis naa bi ma demee kaw Seras gis naa monument bañ la fa defal. Mm-hmm. waa Seras manko bi ñu manko gën laa dooleel. Mm-hmm. ne takke mooy suñu mbër bii Seras. ak dara nag yëpp ñu defal fa monument boo xam te ñëw yow lañ ko fa dippee bii Seras. waaw soo xoolee loolu yombul mais xëy na li ma leen ji la rek. ndax moom soo xoolee man maa fa gën a tuuti maa fa mujjee juddu. Eh, soo xoolee mbër yi fa jaar bëri na. mais amuñu loolu mais jëmm yi seen xol yi ñu ngi ci biir mais su ma ñëwee ñu defal ma fa monument loolu dafa may gën a yokk courage. Mm-hmm. daral bi seeraas bi euh, daralu nag bi ñëpp mànkoo ànd ak man bëgg ma jàppale pour ma doon mbër doon champion kon ñu mel noonu su ma leen amee. Mm. man mënuma leen fay. mais yàlla mi am fay yàlla leen yàlla fay ba liñ bëgg ci man ñu gis ko ndax man ñooñu noonu maanaam dama war a réussir ci làmb dimbali leen am ñu ma fa dimbali. ndax foofu ay bañkat ñoo fa nekk ay liggéeykat ñoo fa nekk. Mm-hmm. yee mais man dama war a teggi si làmb dimbali leen ñi ma fa war a dimbali. te incha allah gëm naa ko te dinaa ko def. waaw ah, mi ngi sama biir xool te lu ma mébét dama koy def. Mm-hmm. barki maam Seydou soo amoon yu mujj booy jóg lu muy ne. waaw xanaa di sant rek. Mm-hmm. di santaar rek. di ñaanal suma yaay ak suma papa ak suma maam. yàlla yërëm leen xaran ajana di ñaanal sama tante yi ak sama. tons bi nga xamante ne moom a yar bu nekkee booy ba léegi yàlla bàyyi ko suma kanam. Hmm. guddal fanam ak sama tante ak ñëpp. ak sama benn rakk bu dem États-Unis barki démb di ko chair di chair sama mafia bi di leen bëggee ñoom ñëpp di gërëm waa parcelle ba vingt six xam nga di wax tons yow laay waxal jot na jot na jot na xam nga li ma la wax nag. mooy loolu di siyaar ñëpp di sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax ak waa kër gi. te nga woo promoteur ku la ci woo na la woo sa diggante ak taxe. ku may woo na woo sama diggante ak taxe ñu bëre làmb la wallaahi bëgg naa ko. dër bi la de. non combat bu neex la. c'est que ñoom ñoom waa parcelle moom waa waa waa Lansar duñ doyal ci parcelle. ñun tamit duñ doyal si ñoom de. noonu la demee waaw noonu la demee. waaw di siyaar ñëpp daal di bëggee ñëpp waaw. taxe kàddu yu mujj yi. yee yu mujj yi muy lu dul di ñaanal suma papa fee mu tëdd yàlla na fa jugee. mu jug fa ak jàmm. ndax dafa tëdd tawat te mi ngi bëgg a yàgg. man doomam maa ngi koy fasaaleel bu baax. Mm. te fu ma toll maa ngi koy ñaanal ndax dafa am loo xamante ni daf ko joué suñu live pour ñu réussir. Mm-hmm. kon baay bu mel noonu soo ko amee mu tawat da koy ñaanal. Mm. si li mu nekk yàlla ko suñu borom bi jëlee. waaw di sant waa Seras yëpp mafia bi. yee suma gars yi am combat Maama Lamine caatu fora yile booy yàlla si mboroom bi may leen dam bépp booy ba nga xamante ni jàmm gën la dëkk. di dolliwaat di sant suma sëriñ bu waaw Maama Samba borom Ngathie Fall man mënu ko fay ndax dafa ma fekk si yoon ba pare dimbali ma jaamu yàlla yi bàyyi ma xel. Eh, sëriñ ñu mel noonu soo ko amee nag eh, da nga koy dolli di sant génn na àdduna mais man ba léegi jàpp ma ni génn na àdduna hmm. man jàpp naa ni chaque jour mi ngi suma kanam hmm. ndax maa ngi gis ay doomam ku su mel ni sëñ Cheikh Jëmmu Fall su mel ni sëñ Cheikh Daaru ku su mel ni Baye Odoot Fall hmm. kon ñooñu soo leen amee eh, amoo leen looy tiit maa ngi sant bu baax bépp njabootu paa maa ngi lay sant bu baax waaw ndax dama leen di jox sama bopp àdduna ak alaaxira yaakaar leen teg si Eh, di xamal promoteur yi eh, man maa ngi fi pour làmb Boy Diop mii ku sox suma combat ba moom pare naa pour jël ko su nekkul moom it keneen ak keneen ku ñëw pare naa pour bëree eh, nekkuma kuy daw avance aw ma xiir ñaar combat jooni jooni sax cinq jours dama koy jël. Ah, waaw man de loolu laa ko. mbër day pare. waaw du fan soo ma ko joxee làmb ma jël ko bëree. barki maam Serapha. gis ngeen mbokk yi gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo tey taxe laa fi daaloon ak ki nga xamante ni mooy Boy Diop Boy Diop moo ngi nekk ci PBM Ndiaye suñu papa ñoo ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal na gën a am tan euh, yaram bi na féex bu baax a baax a baax ndax gis nañ coono yi muy daj ci ñi nga xamante ni mooy xale yi nga xamante ni moom la yor ndax chaque jour moo ngi def la tout pour xale yi mën a nekk champion ndax moom fii la bokk bi wasaaya la bokk moo tax ñoo ngi koy ñaanal jàmm baax a baax takka tamit champion la di ko ñaanal li ci kanamam dàq li nga xamante ni moom la jot a weesu moo ngi nekk fee ci Lansar di nuyu waa Lansar yëpp nga xamante ñun ak ñoom tamit ay samay waay leen daal samay waay leen di leen jox dig daje beneen yoon ci jàmmaarloo ak yeneen ba kontaan naa ci yéen ñëpp Khalil Ibrahima ak waajee ñëpp maa ngi ni bëggee di leen ba beneen jaay jëf